mu jëf fi jëf joo xam ne nii kenn dootu ko fàtte sëriñ Saalif mbake yàlla na na ko sën borom fayal mm, bis bi ci weeru tubaab lanu la fi jóge woon wuy ji boromam fekki way juróom wu tedd wa Cheikh Ahmadul Xadim gannaaw bu defee jëf ju ba am ngërëmul sëriñ tubaa am ngërëmul sun borom tabaraka wa taala am ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit am ngërëmul jullit yëpp waaye rawatina mboolem murit yëpp gërëm nañu sëriñ Saalix Mbakke mu doon koo xam ne yàlla taw tawfiixal na ko mu jógee woon fi bisub ajjuma waaye tamit ñëwoon fi bisub ajjuma muy bis bi gën ci bis nga xam ne mooy sayidul ayyaam ñëwoon fi le 22 septembre 1915 ci Njaareem di bisu ajjuma waaye dëdduwaat fii jóge fi 28 euh, décembre 2007 di yor yor ajuma la fi jógee ila jiwaari rabbihi kon loolu day taw feex joo xam ne ni sun borom daf ko ko jagleel moo tax ñu bëgg a fàttaliku ak barkeelu tamit ci kàddoom yu tedd yooye nga xam ne ni yëpp ay xikma la woon yoo xam ne nii yu ñu amal njariñ la woon dañ koy tàmbalee ci lam waxoon ba mu toogee rek dafa woote ba ñu wuysee mu ne leen li ma sëriñ bi jiital ci yéen dañu koy ànd rek ci kaw ngeen jiital ma ngeen ànd ak man ci jiital gi ma sëriñ Tuubaa jiital bu ma jiitoo it dama leen di geesu rek bu ma leen geesoo séenu leen ma taxaw néeg leen bu ma taxawee taxaw gisuma leen ma dëpp fekk si leen bu ma ñëwee fekk ngeen di doxit ma topp seen gannaaw waaye duñ tàggoo loolu waxi pas-pas la wax ju rëy la joo xam ne nii Euh, ku ci bàyyi xel danga xam ne nii kat ku yéene ñëpp jàmm te yéene ñëpp lim yéene boppam moo koy wax waxi kilifa la itam daanañu wax it ne Sëriñ Tuubaa dañoo buñ masaande wax ne fot fot tàqalewut mbaam ki noppam day wax ne loolu euh, mbaam fot fot jëmi def bëgg a tàggoo ki noppam taxut la net la ne ca nopp yee te dëkku ca loolaa koy tax di fot foti <laughs> daala waxin ne man de bu ngeen ma jiitalee lépp lu yàq diine wala mu yàq ak taalibe wala mu yàq adduna duma ko def te loola de ku ne xam na ne euh, defut lu yàq diine wala ak taalibe wala adduna ci dundam gépp bokk na ci xikam yam daan joxe it ngir soññee ñi ko daana wax ne jaamu yàlla ak jàng alquran de ku ko woyofal ci say xalaat nga ko teg waaye tegoo ko ci xalaat Serigne Touba. te bu ñu demee ci mbindum Serigne Touba it dañuy gis jaamu yàlla fam ko teg di wax ne képp koo xam ne nanguwoo jaamu yàlla sax ab dof nga safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala kuy sàkku àjjana ci lu du jaamu yàlla dal ab dof la boo xam ne nii kenn du ko nangul ku yaakaar àjjana it ci lu du topp sunna topp yàlla ci sunna si yonante bi bu ëllëgee dana waru rajaa u jannatin bila taati bi sunnatil maahi gurur yaati daana waxit moom Serigne Touba ne képp koo xam ne nii nangu wala jaamu yàlla nga xam dafa bañ a jaamu yàlla de dana torox zullul la si abal ibadata fala yazalwal maahi mahama afala bu dee jàng alxuraan it digal digal na ko mboole murid yépp kullu muridin bi yello su fal yudim tilawatan li xayri dikrin xadru sim moom sëriñ saalih it daana wax ne doomu aadama ju ne yàlla taqale na ko ñaari biir nee na biiru boppam bi ak biir bàmmeelam biiru boppam bi bu ko yitteel yàlla mi ko sàkk dana wut lu mu ca def biiru bàmmeelam na yitteem ndax lu mu fa defut du ko fa fekk te loolu alquran la al alquran moo ne wa ma daa dabbatin fi l ard illa ala llahi li war si yéen lépp cib dund yàlla moo ko warlu waaye nag wa ma xalaqatul jinna wal insa illa li yaabuduni li leen fa war yéen mooy ngeen di ma jaamu ndax loolu laa leen di fay boo ëllëgee bindu ma nit ak jiim jinne lu dul ñu di ma jaamu moo tax sëñ bay jaxate ca xikmaam yu am solo ya ñaari aay yooyu daf ko tënk ci benn bayit daal di wax ne xamal ne yàlla danoo yan lëf yenul nu lëfit ak topp moom lanu yan wërsëg yi moo ko yenu moom sëriñ Saalif Mbàkke daa daanañu wax ne day àdduna àdduna àdduna àdduna jii day ma ngay dem dëddu na te kenn du ko jot daw taxut nga jot ko loo ko gën a wuti mu lay gën a sori yàlla sunu borom nag loo koy gën a jege mu lay gàttandu kon nanu wuti yàlla loolu daana ko wax moo tax sëñ ba Jaxate daana wax ne gis naa la ngay dàq ab yaafus te jàppu la ko moo kon na ngay jàppee ab njaxlaf te dàqu la ko yaafus mooy àdduna njaxlaf mooy àllaaxira yaa ngi koy dàq te jotoo ko bëgg jot àllaaxira mi dim njaxlaf te dàqu ko sëñ Mbay Jaxate nee na loolu am boroom xel du ko def bokk na ca xikam yi sëriñ Saalix Mbakke daan joxe it di son ñu taalibe yi ci hadiya daf daan wax ne hadiya day ba ma nekkee kër sëñ Mbàkke Jaxate nee na dañ ko faa joxoon ab dërëm addiya mu daal di samp aw xelam daal di wuti kër sëñ Touba ba mu demee daal di fëgg perma sëriñ bi daal di ubbi mu daal di koy eh, sànni dërëm ba sëriñ bi ne ko ànd loo ci jublu mu ne ko ah, dama la ko jox addiya nee na sëriñ ne ko góor te nee na booba ndaw la lool ci saa saahir te loola la taxoon mu di ko nettali sax ci ak mujjam la ko doon nettali ñenn ci eh, kenn ci ñi ko jege woon ne ko da ngay seet rek. ayu bis gii rek di jox nañ ma fi ci addiye lu ëpp milliard lu ëpp milliard jox nañ ma ko fi ci addiye Serigne dal ne ko addiye nag noonu la demee ndax ba ma nekkee njaareem daal di koy nettali wax ji ma la wax léegi daal di wax ne Serigne Touba di noonu na bokk na ci li addiye def li gën a néew ci li muy def waxut ne li addiye jariñ lépp sax waaye bokk na ci li muy def euh, fu mu fekkul dara def fa dara fu mu fekk lu néew baril ko fu mu fekk lu bari itam barkeel ko kon daal sëriñ Saliou bu ñu toppoon ay waxam ak i ndénkaaneem ak i xikmaam ak i jàngaleem mën nañ fee yendu fanaan fi te du tax mu jeex xanaa kay dañuy ñaan rek suñ boroom mu dollil na ko ay leer dollil na ko ay ngërëm fa mu nekk te eh, yàggal fi ak njabootam te taas ñu itam ci barkeem te yoon woowee mu jaaroon xàll ko yéene ñëpp jaar ci ngir ñu am ngërëmul sëñ Touba yàlla sun borom teg ñu ci ci barkeb sëriñ Touba